li am ba am mooy xeex bii ñu jóg taxawal ko du pour suñu bopp waaye pour sénégalais yi la ñoom nañu seet naka la ñu mun a def ba boo xamee ne woote nañu ñëpp ñëw taxaw xam nga ne lii fi nekk di à peu près mille personnes bu ñu jógoon léegi léegi ñaadam ñaadam jël yoon wi amaana takk der yi dana noo amay jafe-jafe Macky ci taal réew mi la jëm te duñu ko ko bàyyi jakarlo ak mom yeen les forces de l'ordre fexe len babu boba ngeen ngeen ak askan wi fexe len babu boba ngeen ngeen ak sen njabot yi bu len nangu ñu len di utiliser parce que Macky Sall tal rew mi la bëgg te lolu ñun ñi ñoko ko wara xay Macky Sall na xam rew mi kenn ku nekk da nga ci am part te da nga wara taxaw xex ngir démocratie Sénégal lu ko dëgëral moom Macky sàll ak ñi mu ñu ngi ci seen logique mooy seet nañu def ba élection yii di ñëw ñu sàcc ko waaye loolu juum nañu ndax sénégalais yi taxaw nañu sénégalais yi pare nañu pour joxe seen bakkan ngir lii nga xam ne mooy forfaiture bi mu bëgg a organiser ngir am deuxième mandat ñu bañal ko ko parce que xam nañ ne Macky sàll bu amee deuxième mandat réew mi dina toskare